conseil départemental de la jeunesse dañoo ñëwoon d' abord pour féliciter comité départemental bi nga xam ne préfet moo ko jiite ànd ak monsieur le maire ànd ak chef de district bi ànd ak population yëpp parce que gis nañ ne boobu ba léegi ñoom ñu ngi jël ay actes yoo xamante ne gis nañ taalibe yi ni ñu ko gérer gis nañ marché bi gis nañ jakarta yi gis nañ lépp ñi nga xamante ne ñu ngi koy gérer pour que Fatick du am maladie bi du am bala bi nekk fii nii donc ñun nag ñu nekk ci ASC yi nekk ci de jeunesse yi ñëw jox leen ko ne gis nañ combat bi li ñu ci def ñu ngi leen di jàppale te ñu ngi seen ginnaaw à travers nos associations à travers nos organisations ñu ngi seen ginnaaw di leen jàppale te gis nañ xeex bi ni ñu koy xeexee rafetlu nañ ko donc jeunesse su département Fatick bi mu nekk di 17 communes yëpp ñu ngi leen di njookoo njal ñu ngi leen di jaajëfal di leen wax ne lii lañ soxla parce que li ñuy xeex ni ñun lañ koy xeexal parce que ñun ñooy avenir u dëkk bi donc ñëpp ñoo xamante ne bàyyi nañ seen jitte chaque jour ñu ngi leen di gis s le terrain chaque jour ñu ngi leen di gis ñuy réceptionné di jël ay directives donc mënuñ leen jaajëfal di rafetu liggéey bi ñuy def parce que ñun ay ndaw lañ rek ñoom ñun la ñuy liggéeyal ñu ngi seen ginnaaw tey suba ëllëg heure bu ñu soxlaa rek dinañ jóg jàppale leen si liggéey bi peut-être kay rassemblement la ñuy bañ des fois moo tax duñ mun a oo jeunesse bi yëpp mais ñu ngi leen di ñaanal yàlla may leen jàmm may leen gu yaram ba xeex bii nii ñu mun ko gañe gagné ko pour la jeunesse de Fatick gagné ko pour population bi comme monsieur le maire mu ngi fi aussi ñu gërëm ko di ko sant gis nañ acte yi mu yëpp depuis le début de la pandémie donc jërëjëf. donc damay rafetlu lii nga xam ne conseil départemental de la jeunesse def tey ñëw euh, def seen loxo ci xeex bi ci don bi nga xamante ne def nañ ko ci département bi waaye damay wax ne ñoom seen loxo dafa mës a nekk ci xeex bi. monsieur le maire rappelé na ko ñoom ci comité départemental lañ bokk waaye boo xoolee dama ne jeunes yëpp bi xeex bi commencé ba léegi ñu ngi ciy bokk ndax am na ay segment yoo xam ne ci conseil départemental de la jeunesse lañ bokk ñoom ñu ngi ci biir xeex bi mooy mouvement à fulaar yëpp ñu ngi taxaw ànd ak équipe bu sanitaire yi di liggéey pour mettre en œuvre donc li nga xam ne loolu lañuy ñuy te loolu bu weesoo tamit am na yeneen jeunes yoo xam ne dañoo jug ci quartier yi jeunes yi dañuy organiser ñëw ne ñu préfet ñun dañoo bëgg a bokk wala préfet ñun kat lii lañ xalaat mooy yokk leen xalaat gën leen defaral am na ay quartier yoo xam ne xale yi dañoo booloo def ay solidarité ñëw fii wax ma ko ma encadré leen ñu distribuer loolu defuñu ko ci presse bi vulgariser waaye xale yi def nañ ko am na ay étudiants yoo xam ne dañoo ñëw ne ma fan lañu war a jàpp ma orienté leen ñu dem xalaat def ay enquête travailler accompagner dérouler ay mesures yooyu yëpp kenn vulgariser wu ko waaye ay firnde la yoo xam ne day wane jeunesse Fatick ma jàpp ne ñoom ñëpp rek conseil la départemental ñëpp def nañ ci seen loxo donc damay gën a rafetlu seen taxawaay ak lii ñu def nii